billahi mina seytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaye mën a nekk ñoo ngi lay ziar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér gëram xéwal gu yàlla defal àdduna ak àllaaxira rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam Chifa ñoo ngi ziar baax ci koor gi di leen ci ñaanal baax defal àdduna ak àllaaxira ci la lépp xaj di sàkku yéen ci yéen tamit ñaan te xam ne Daaru Salaam si waaw moom yéen rek la fi nekkal lépp lu njëriñ doomu aadama fas yéene fay jaar kàttu suñu borom tey dañoo ñëw ci saar wu neex xul walaaw ahad xul nag mooy ixlaas surtout ixlaas xul walaaw nag saar bu bari ay secret la saar bu bari ay njëriñ la xul walaaw nag mën nañoo wax ne mooy carte d'identité suñu borom tabaaraka wa taala ndax léppam da ko kennal booy wër carte d'identité suñu borom laal demal nga xool xul walaaw rek xul mooy lépp kon xul walaaw axat calabaat bi ñuy wax samadu nekk samadu bi jàpp na téeméeri téere yi ak ñeent yi wàcc kaw suuf samadu bi mag ñi daan ci jaar sax dem julli gu ñuy def julli googu la ñuy wax julli sam samdaan yi samadu bi ku koy wér de cent quatre saa bu xëyee ak ngoon bala ngaa tëdd mag ñi daan ko jëfandikoo ci pour ku am jafe-jafe ci dépense wax nañ ku ko saxal di ko liggéey cent quatre suba ngoon doo ñàkk repas tur yàlla na danga koy saxal boo ko jëlee nga saxal ko ñaari fan ak nga bàyyi tur yàlla bu bëggee mu jariñ la dara wala mu ubbee ko la nga koy saxal xul walaaw aat benn la ci saari suñu borom tabaraka wa taala xul walaaw aat kuy nelaw tëdd sa wàllu ndeyjoor nga jàng téeméeri bala ngaa tëdd kooku dee rek ka dafa diggante ak àjjana buy dee rek dem àjjana ko jàng téeméeri yoon ñu jégg la ba tey bàkkaaru juróom fukki at ku jàng ku toog ci benn place jàng fa xul wala wax téeméeri yoon ñu jégg la bàkkaaru juróom fukki at kon xul wala waxat lu bari njëriñ la ndax sax wax nañu boo koy jàng lu bari sax malaaka yi dañ lay xam da ngay siiw ci kaw moom pour wala wax boo koy jàng lu bari da siiw ci kaw ndax wax nañu Seydina Jibril mas naa toog ak yonent bi salaahu alayhi Jibril seen Abaas ibn Xafaar muy ñëw mu ne eh Abaas ibn ñëw yonent bi salaahu alayhi wa ne ko Jibril yow foo xamee Abaas ibn Xafaar mu ne ko day jàng xanaa xamoo ne kuy jàng moom jibli day wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xanaa xamoo ne kuy jàng xul wala wax du bari ñun malaaka dañ lay xam siiw ca kaw nag moo gën lépp siiw ca àdduna te kuy jàng xul wala waxat malaaka yi dañ lay xam da ngay siiw ca kaw asamaan ba loolu abaa ñu xafaar moom daan ko lu bari malaaka xamoon nañ ko bu baax képp ku topp ca tànk bi yooyu rek malaaka dañ lay xam bu baax muy abaa ñu xafaar pour wala at boo jàngee ci boo toggee ci benn place nga jàng ko douze mille fukki junni ak ñaar boo dee tabaajal ndax dañ ci daaw mën na jël ci daaw ni pour jàng ci benn place wala pour toog ci benn place jàng mille comme ni nga koy defee ci bés ñaar daaw mooy dee rek jël mooy di bëggee am wërsëg nag booy dugg sa kër wala sa néeg boobu fekkul kenn jëkkële ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi asalaamaaleykum nabi wa rahmatulahi wa barakaatu loolu ngay nuyoo néeg bi kii nga bëri wërsëg nga jàng benn xul wala waat daal di ne asalaamaaleykum nabi wa rahmatulahi wa barakaatu loolu sa déet na nga bëri wërsëg donc téere yu bëri saxal nañ bu dee salaatu samdaani bi nag. moom waaye bala ngaa jàng bala bala ngay misaal séminaire bi loolu mu naafila la boo jàngee xulóo laa waxaat benn ñetti yoon mel ni wàcc nga kaamil boo ñaar mel na ni wàcc nga kaamil ñeenti yoon boo jàngee xulóo laa ak ñaar na ni wàcc ñeenti yoon waaye nag li ñu lay wax ci alxuraan da ngay saxal ne. alxuraan dafa set ndax laa yamassuhu illal mutahharuun tanziilun min rabbil aalamiin kenn waru ko laal te selloo ku koy jëfandikoo da nga war a sell ndax alxuraan mi ngi jóge ci suñu borom tabaaraka ñu ñëw ci salaatu samdaani bi nag salaatu samdaani bi nag nii rek la ñeenti raakaa ngay julli raakaa bu njëkk ba nga tari faatiha ginnaaw faatiha ji nga jàng kul wallaahu ahad fukki yoon ak benn muy première rakka nga demaat ñëw deuxième rakka ba jàng faatiha benn yoon tari xul walaaw ahad ñaar fukki yoon ak benn vingt et un nga sëlma muy première rakka nga dikkaat deuxième rakka jàng faatiha benn yoon jàng xul walaaw ahad fanweeri yoon ak benn daal demaat ci deuxième rakka jàng faatiha benn yoon jàngaat xuloo laa waxaat ñeent fukki yoon ak benn daal di taaye ji sëlmal lii boo ko defee am nga salaatu samdaat yi lépp loo ji ñaan suñ borom suñ borom mën na la ko may lépp loo ci bëgg dem suñ borom mën na la ko séwale mu yomb ndax ma julli koo xam ne maa ngi leen kaa jëfandikoo ngir faj soxla julli koo xam ne maa ngi leen kaa jëfandikoo ngir faj aaja julli koo xam ne maa ngi leen kaa jëfandikoo tamit ngir dàq ci njàqare wala dàq ci lépp loo ragal pilule goo xam ne maa ngi doon kaa daan jëfandikoo pour seen buntu wër sa kubbeeku wala ñu mën a am dara ba tax na julli gi kon ku ko julli muy salaatu samdani bi suñ borom dana la bu loo ci jublu rek yaa xam loo ci jublu ci bu dàq ko rek mën na ko mën mën la ko dàqal gis nga ko moo tax la salaat dafa garaaw buñ boo jullee ñaar rakka njëkk yi fukki fukki fukki formula ak benn la la jox defal nga ñëw ci deuxième rakka bi am 21 xul wala waxat nga ñëwaat ci troisième rakka bi am 31 xul wala waxat nga ñëwaat ci quatrième rakka bi am 41 xul wala waxat looy bokk total da lay jox 104 mu toll ak samadu bi wala moo tax la sala jëf am na beneen bu ca génnaan nag muy salaatul xaasi lañ koy wax moom da ngay julli faatiha benn yoon boo taxawalee da ngay jàng faatiha benn yoon nga jàng xul wala waxat nga dem sa deuxième raka jàng fatiha benn yoon jàng ko wala waat ñaar fukki yoon euh, nga demaat nga sa taay sëlmal nga dikkaat ci deuxième raka ba nga jàng nga dikkaat ci ñaar yeneen ñaari jës laa bëgg wax nga jàng fatiha benn yoon jàng ko yoon nga jàngaat ñëwaat ci deuxième raka ba jàngaat ko wala waat fatiha benn yoon jàng ko wala waat ñeent fukki yoon lii boo ko jëlee dalay jox moom it nga calculé ko 10 20 30 40 te la jox téeméer 100 mooy dinañ maa ngi leen koy wax salaatul xaasiya julli la goo xamante ne nii boo ko saxoo moom di ko def lépp loo bëgg rek jàng ko suñu borom rek dana koy jox moom ci xurba laa wax nga koy def raka bu njëkk ba da ngay jàng faatiha benn yoon xurba laa wax fukk deuxième raka nga ñëw jàng faatiha benn yoon xurba laa wax ñaar fukki yoon nga ñëw ca taay dem taay seen ñaar rakaay jeex. nga ñëwaat ci yeneen ñaari mujj jàng faatiha benn yoon jàng xul wala awat fanweeri yoon nga jàngaat xul wala awat benn deux raka ba jàng xul wala awat ñeent da ngay am ñi téeméeri xul wala awat ci génn julli ba sam salaat samar yi leen wutale da am xul wala da cent quatre kon loolu mooy salaatul xaasiyya ba mooy salaatul samsaani boo ci jël nag baax na maa ngi leen ko doon julli daa war na ci benn demande mu nekk mu julli ko semaine bu nekk benn yoon wala bu ko mënee wala bu ko mënee ñaar yoon bu ko jotam may tamit sax bu ko neexee def ñaan soxlam ci kàttan suñu borom dana faj aajo dana dox ci sécurité dana dox ci bayre dana dox ci kaaraange moom julli yooyu yëpp moom kon xur wala ngoogu nag muy sorti ixlaas muy njëriñ lu bari ginnaaw boo ko jàngee ñetti yoon ba ne wàcc nga kaamil loolu moom téere yëpp ko wéral saa boo toogee yor njàpp mu sell nga toog jàng xul yoon mel na ne wàcc nga kaamil nag li ma koy waxee rek ma nga fa nekkoon ba léegi lépp lu ñu daal soo ko yow la waaye mooy téere boo xamante ni mag ñëpp maase nañ ci ne moom lañ yaakaaroon kitaabun bihi narjoo minallahi rahmatan téereb yàlla bi moom lañ yaakaar mu jóge ci yàlla nag doon yërëmali ci noonu te ku bëgg suñu borom yërëm la rek saxal ci alxuraan alxuraan nag xul wala wax mii daa bokk ci saar yi ci gën a ndax saar woo xam boo demee ba ñu koy méngale carte d'identité suñu borom da war mooy xam nga ne am na doole alxuraan nag lépp am doole waaye ëppante na ay doole kon xul wala wax na boobu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen ñaanal defaru àdduna ak àllaaxira di sàkku ci ngeen ñaanal ñu gudd fan ak wér xéwal yaatu defaru àdduna ak àllaaxira rek ci weeru koor wu tedd bi wasalaamu a wa rahmatullaahi wa barakaatuhu sama gars yi yéen ñëpp leen siyaar nag ñi ni topp bitim réew ak waaye man ne ci àdduna rek ñoo ngi lay siyaar baax a baax boo ni nga déggee mooy tënk defaru àdduna ak àllaaxira rek ci la lépp xaj te bu àdduna ak alaaxira ci lépp xaj maa ngi leen ciy siyaar baax di leen ko ñaanal bu baax tamit